mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun di nuyu mbokk auditeurs yeeg internet yi di leen dalal jàmm ci émission gox bi di bal ak di leen baalu ak itam ci julli gi nga xam ne nag ci lañ jóge xaw ma ci lañ nekk ñi ma gën a xam dinañ ma euh, jubbanti euh, tey nag ñu am ci yéene dalal ci ki nga xam ni moom moo di Lamine Gueye responsable République des valeurs bu nekk itam coordonnateur parti bu ni mel ca diwaanu Pikine monsieur Gueye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay di la dalal jàmm ci émission gox bi. maa ngi leen di fay di la vraiment di nuyu euh, ñu ñuy déglu ñëpp. Mm-hmm. di la remercier yow ci invitation bi. Mm-hmm. Euh, di la ci sant di la ci gërëm. Mm-hmm. alors monsieur Guèye xëy na ci fête bi lañ jugu. lañ jugee dem nga euh, ñu may la benn mot nga saafante ak askan bi baalante ak. di di déwénati mm, di ñaan yàlla. ñun ñëpp ñu fekk ko di fee bu ñu ko fekkee ren yàlla def ñu fekk ko déwén mm-hmm. mu ànd ak wér xéewal sutura ak tànnaatànke mm-hmm. di jéggalu ñëpp tamit mm-hmm. di ñaan yàlla aussi képp koo xam ne rek ñu dégg tooñ nañ la wax nañ ba ci émission bi sax bi muy jeex kuñ ci waxee noo xam ne naka sul noonu nañ ko ñëpp jéggal ci barke yonent bi ok kooku monsieur Guèye moom la ñuy dalal ci émission gox bi alors coronavirus mënuñu ko esquiver tey daanaka ci looy jublu rek ci ci diwaanu Sénégal coronavirus ak ni muy évoluer dañ naan jàngoro bi mu ngi wàcce mhm. waaye ñeen naan mi ngi yéeg xayma bi mënuñu ko wax mais jàngoro ji tamit mhm. mi ngi fi lan moo si sa jàngat bu njëkk waaw jàngoro bi nag moom dafa di loo xam ne euh, en tant que croyant dañuy ne yàlla suñu borom moo ko wàccee mhm. euh, muy nattu wala muy balaa ak nu ñu ko mën a tuddee muy loo xam ne doomu aadama yi dañ ko war a confronté muy lu bees na ci àdduna bi yëpp moo tax nag Euh, fu mu nekk rek àdduna bi njiitu réew yi ñoom ñooy jiitu jël ay dogal jël ay matuwaay ndax dafa di feebar boo xam ne benn nit rek mun ci mucc boo nee sida yow mën nga def abstinence wala nangam ak nangam xam nga noo ci muccee mhm. bu ne sibru say say say say antiquaire xaw ma moustiquaire autant pour moi mhm. moustiquaire mun nga ko takk nangam ak nangam mais kii dafa di feebar boo xam ne collectivement mhm. la ñu war a mën a defee euh, prévention bi loo xam ne nag état moo ci war a jiitu moom moo war a jëlee devant am sensibilisation bi am matuwaay yu ci topp yi nga xam ne comme ni ko àdduna bi defee foofu nag la ñuy xamee xarañteefu Euh, matuwaay yëpp jël nañ ko. ci la ñu xamee xarañteefu njiitu réew yi. Mhm. malheureusement fii nag jël nañu ay matuwaay mais matuwaay yi. Mhm. Euh, dafa mel ni ko jël. Mhm. xamuñu ne amuñ njariñ. Ah, yow foo ko teg li nga wax nii yow foo ko teg. bon ci ci gàttal bi ñu dalee euh, jug feebar ba léegi. ñu ngi jël ay matuwaay terewul feebar baa ngi yokk. boo demee ci yenn dëkk yi ñu ngi jël matuwaay feebar bi di wàññeeku. boo demee dëkku tugal yi nga xam ne dañ daan xëy ñu ne 700 personnes juróomi téeméer ñaar fukk génn àdduna ñu ngi di ko tegle ñu jël ay matukaay dem nañ ba feebar bi wàññeeku donte sax léegi mu ngi jugaat ndànk-ndànk mm-hmm. fi Sénégal nag dañuy jël matuwaay feebar bi di gën a yokk mm-hmm. lu waral loolu parce que maanaam ñi ñu jiite premièrement mbiru feebar bi leen yitteelul seen ah bopp waaw seen bopp mm-hmm. boo xoolee ci pandémie bi ci feebar bi biir feebar bi nga dégg ñu naan dañuy nommé Aminata Tall hmm. benn décret boo xam ne dañ koy fay euh, quatre million cinq cent wala cinq millions par mois hmm. ak euh, euh, avantage yi stop hmm. sénégalais yi tiit mer ñun delluwaat ci ginnaaw ci biir feebar bi la mag Sall di casé ay nitam ay PCA di leen fay salaire. da nga jàpp ni état bu Sénégal feebar bi yitteelu ko. te na leen yitteel. Mm-hmm. vraiment moo tax. te tamit ni ñu koy yitteel li mu leen yitteel ak néew sax. Mm-hmm. dogal yi ñu jël du logal boobu feebar dafa nekk feebar boo xam ne mooy li ma la wax dafa mm-hmm. bees lëmbee àdduna. kon ñëppoo ci war a ànd. te du nekk loo xam ne réew mi yëpp la dal déedéet dafa am fu mu gën a dal am foo xam ne foofu la gën a wàññeeku am na foo xam ne. foofu la gën a euh, euh, dar mhm. donc bu ñuy jël dogal nag président de la République d'accord mooy jël mooy njiit mhm. mais daf ci war raxaale ñi nga xam ne ay démembrement de l'état la ñu mel ne ay maire mhm. ay préfet mais boole na leen ci déedéet boolewu leen ci xamul tax président moom moo génn joxe couvre-feu wala ministre de l'intérieur génn mais préfet dañ leen waroon jox ay ay ay pouvoir euh, jumtuwaay yi ci war par exemple feebar bi ni mu ni mu mel Dakar melu ko Bakel mhm. wala melu ko Kédougou wala melu ko kóor Kédougou mhm. donc du même traitement nga war a traité ñaari zone yëpp mhm. feebar bi nee naa euh, prévention wala sensibilisation collective la war a doon donc ni nga war a traité Dakar supposons mu am cent cinquante cas du noonu nga war a traité Bakel xoola président la bi muy génnee couvre feu bi mu ne couvre feu sur l'étendue du territoire te am na vingt départements de quarante cinq du pays mhm. yoo xam ne amuñu feebar bi léegi ñooñu nga imposer leen couvre-feu tëj leen mhm. wàññi seen activité économique te feebar bi neewu fa su ma la déggee mooy état xamul ban yoon la jaar ci coronavirus bi mais mais mais sëñ bi itam du état rek moom moo war a taxaw ñoo saytu jàngoro bi ni mel askan wi itam ci lañ bokk relâchement bu demee bay am mhm. ñun ñëpp la de waaw moom laa lay askan bi ci la bokk mais dem na la dafa nekk sensibilisation boo xam ne c'est collectif. Mhm. ñun ñoo war a àndandoo def ko te état loolu lañ koy doyee. état moom moo nekk ci kaw ñëpp. lu mu wax loolu la ñëpp war a def. Mhm. tey jii mën nga taxaw ñu ne ah sensibilisation bi lii dañoo war a takk masque dañoo war a raxas say loxo mais man su ma takkul masque yow amoo benn pouvoir ñoo ne forcément da war a takk masque état mais état am na ko. donc nag moo tax ma ne état moom moo warul def loolu. Mhm. te nag comme dafa feebar boo xam ne làmbul Sénégal yëpp. dafa am fu mu gën a dal am fu mu gënul dal. loolu danga koy dénk ñi nga xam ne ñoo gën a jege population bi. ñu mel ni préfet yi. Hmm. mel ni préfet Dakar li mu mën dakaar wala maire Dakar li mu miinee population bi ministre bi miineewu ko noonu. maire euh, Saint-Louis ni mu hmm. miinee population bi. Hmm. Alioune Ndiaye mi nekk Dakar miineewu ko noonu. donc dafa nekk feebar boo xam ne da nga dafa jege population bi ñi gën a jege population bi ñooñ nga war doole. jox préfet yi pouvoir. jox maire yi pouvoir doole leen. imposer leen ay ay ay objectifs. noonu lañu war a def. leader d'opinion nga itam ci doon Pikine. alors tey jàngoro bi jug na mm-hmm. moom Lamine Gueye mm-hmm. dem na wàllu askan bi mm-hmm. ci masque ak gel ak yi ni mel foo ci toll waaw yooyu moom ñun ñun ñu koy def parce que ñun xaar ñu sax corona def ko ñun dañ gis ne vision bi ñu am ci politique mooy dañoo war a soppi gox bi defaraat gox bi loolu nag xaaruñu ci état xaaruñu ci maire li ñu mën akas néew ñu ngi ci def akas néew bu ñu yàlla dénkee ñu jël suñu budget budget bi nga xam ne moom la askan bi jox Euh, pour gox bi ñu jël ko gën a defar gox bi moo tax ñu ngi liggéey ak as néew li ñu mën dans les mhm. moyens du bord mhm. alors dañ ne euh, leader yi des fois yi ni a war a fekk ji tey maire yi mhm. ngeen dem liggéey ensemble parce que corona bi dafa mel ni dafa boole ñëpp alors yow est-ce que euh, li ni mel looloo am dem nga seeti maire bi xool ban stratégie ngeen mën a taxawal ngir mën a fànq jàngoro bi ni mel ca diwaanu Pikine Nord xam nga seeti kilifa doo ñëw ne ko par force kaay ma jàppale dañoo waxtaan na neex borom kër <laughs> kaay ma teral la kenn du ko def da ngay xaar ki ki nga xam ne moom lañ dénk <laughs> moom moo naan la kaay jàppale ma dangay leen da ngay jàppale dama joxe dama jël dama tontu question bi mm-hmm. bi nga xamee ne tamit Pikine pour le cas de Pikine mm-hmm. woo ñu pour ñu dem ànd ak maire boobu dañ woo rek pour mbirum séddale ceeb bi bi nga xam ne état joxe na ko ñu séddale ko ñu ñëw assister opposition bi yëpp ànd nañ ci man dama fekk bitim réew samay naataangoo samay représentant envoyé na leen ñu dem def ko. Mhm. def naa loolu même bu ñu maire woowu loon sax ñun la ñu waroon def ak a néew avant maire di woote. ñu ko doon def. Mhm. ñu ngi avant corona di ñëw. Mhm. yi di jël suñu alal di ci def. pas pour jënd nag. parce foofu dafa am ñaar. dafa am boo xam ne da génn sa xaalis pour jënd homme politique bi. am boo xam ne da génn sa xaalis pour def. lu ñëpp bokk lu mel li ñu defoon dañoo def consultation gratuite boo xam ne Pikine ñëpp ci jariñu boobu nag damay wax consultation gratuite parce que mmh. Pikine li fa daan am consultation moins chère la mmh. da nga joxe deux mille wala trois mille mmh. mais ñun nag amul joxe dara amul fay waaw amul fay beneen bi aussi dañ ne bu ñu defee consultation bi ba pare képp koo xam ne ñëw ñu seet la rek ordonnance ba la docteur ba bindal ñun ñoo koy jënd donc loolu def nañ ko avant corona. Mhm. bi corona ñëw itam def nañ ay actes. nga xam ne mais bi ñu mer woo itam mhm. dem nañ. Mhm. ci lim ñu sant. gis ngeen ko seen projet bi ngeen yaakaar ni bu ko jaaree euh, coronavirus bi dinañ ko fànq ci ci commune bi. non non moom woowuñu woon pour loolu daf ñu woo parce que pour séddale état. ceeb bi nga xam ne moom la séddale mu ñëw ne nañ seetaan ànd ak mhm. moom ñu séddale mhm. donc loolu la ñu woowoon mhm. bi nga xam ne ceebu état jeex na nee na woote bi jeex na na ku nekk dem sa dem man sama ceeb laa am moom laay séddale moo xam ne moo koy neexee ñu bàyyi kook ceebam mu séddale Lamine Gueye euh, Pikine Nord nga dëkk itam Amadou Diarra moom mooy maire bi tey bañ doon wax koppar état bi dimbali na leen pour ñu mën a génne seen koppar mun a xeex ci mbas mi koppar bu mu génnee. Mm-hmm. ndax yow politique bu mu xeexee ak coronavirus bi. Mm-hmm. loo ci jàngat. waaw musiba parce que gis nga musiba bu doy waar. parce que musiba ci lan en tant que homme politique foo ko teg musiba bi ci laa que homme politique. dañ ne duñu xaar ba élection ñëw dañuy contrôler l'action mm. de celui qui au pouvoir. Mm-hmm. ceeb bi état bi dafa ñëw joxe ceeb. mooy li ma leexu léegi. Mm. bi mu état joxe ceeb. dafa ñëw ñun ñëpp. boobu préfet moo ko imposé. na acteurs yi ñëw. moom vraiment donc koy nangul préfet waxul woon mu wooñu mais ñun suñu parti moom moo ñu woo. bi ñu séddalee loolu ba pare ba mu des xaalis bi nga xam ne moom moo ko génnee. ci budget bi. koppar gi ñaata la toll vingt cinq millions virement de millions vingt cinq millions yi moo nekk ceeb yeneen six millions yi nekk d'autres denrées ba xaalis boobu ba mu ko génnee ba indi ceeb bi dafa ne ñi nga xam ne ñoo nekkoon amatul xool ceebu état lañ doon xool jeex na mais bii nag sama ceeb la man maay xool lu ma koy séddalee Mansour Faye du ma wax lu ma koy séddalee Macky Sall du ma wax lu ma koy da nga jàpp ni dañoo détourné alal dama am ci lañ ci laa mhm. loolu dafa nar njur njaaj moo tax parce que ku nar a ku ku ñu dénk mhm. di nga xam ne yow moomuñu la moomoo liñ la dénk ñi la dénk ñoo ko moom mais boo demee ba jàpp ne li nga dénk li ñu la dénk yaa ko moom naan sama ceeb rek mhm. kon ça veut dire que yaa ngi jaawale poos askan beeg sa poos li ci topp nag mooy dafa gëm gëmloo woon sénégalais yi ne waa Pikine autant pour moi. Mm-hmm. ne leen ah ñun kat séddale nañ ceeb bi te alors que ba mu indee ceeb bi fayil ko ko joxoon ceeb bi borom ceeb bi ñëwaat jël si ko mu noppi. donc vingt cinq mille yooyu kenn xamul fu mu jaar. Mm-hmm. ñu dénoncé ko. parce que lu toll ni pandémie loolu dafa ma metti nag lu toll ni mbas mi. loo jàpp détournement. mais tentative de détournement dañ ko dénoncé moo tax mu indiwaat ceeb bi. mais Pikine Nord. bu ñu waxul jënd ceeb imagine nga jënd ceeb semaine après ki la livré woon ceeb bi ñëw ci maire bi jëlaat ceeb ba yóbbu. te sunu maire ku xam ni mu bëggee photo ak filmer <laughs> boo doon seet ci internet bi sax di nga ko gis jamono ji may wax yow parce mu ngi photo ak filmer ba ceeb bi ñëwee dafa photo filmer ceeb bi ñëw na. <laughs> ñu xëy xëy xëy kala ceeb bi ñëw <laughs> ñun ñu yëg ne ndaw si nanguwaat na ceeb bi biñ ko laajee mu ne ceeb bi séddale nañ ko ñu ne ko c'est pas vrai ceeb bi séddale wuñ ko ki ko livré woon yóbbuwaat na ko. Mhm. mu doog a ñëw nag li ngay wax doy na waar de. looloo xam Pikine li fa li fa xew yëpp kooku peut-être mais papaam Ablaye Thimbo maire de la ville. Mhm. moo gën a doy waar ñëpp. cest dire dañ nekk réew moo xam ne. Mhm. muy Pikine nord département de Pikine muy Sénégal dañoo am problème moo leadership maanaam ñoo xam ne bi moo leen ñor ñoom dañ jàpp ne politique pour lan la occasion la pour tremplin euh, euh, euh, gravir ay ay échelon social mhm. donc loolu la loolu la xew Pikine nag ñu mhm. dénoncé ko da jàpp ni transparence amul ci ni maire Pikine yi li nga xam ne moo di koppar gi ci Covid 19 bi même bu avant Covid 19 bi ah ay scandale parce que imagine Pikine Nord ay on a ay scandale rek nga fay am parce que boo xoolee ñu ne fictif yi fa am maire bi di fay vingt cinq millions salaire par mois mhm. surcharge bi kenn xamul nu mu toll li léegi wax naa ko waxati ko ay emploi fictif rek la ak ñoo xam ne dañ leen jël ni ci maire yi amuñu benn liggéey passe à longueur de journée di troller internet bi ku wax tudd maire ñu saaga la xas la Facebook WhatsApp yi la groupe WhatsApp yi la yendu mhm. fanaan ci ba 4 heures du matin ñu xëy tëddi yow mhm. midi bu ñu maire fin du mois ñu dem maire yi euh, fayeku mhm. emploi fictif yooyu am na Pikine Nord loolu xam nga man waxewuma surxu rajo laay waxee yéen a teggi ay tuuma. no bu teggi tuuma xam nga buñ la tuumalee ne la lii am na emploi fictif yaa ngi nii. am na ci koo xam ne sax moom moo leen invité këram. Hmm. ndaw si wax ci direct bi ne man damay jàppale maire di ko sant di ko gërëm ndax dafa ne ma war ngaa fay ko comme ñëpp. Hmm. mënoon na maa wax booy fay ko da ngay xëy liggéey waaye sama kër laay toog fin de mois ma dem fay ko direct Facebook c'était chez lui hmm. direct Facebook loolu amul weddi donc man si pense que buy weddi tuuma day expliquer femme boobu nan la demee muy fayeeku di tëdd këram yow da ngay fayeeku tëdd sa kër doy na waar doy na waar donc dañuy tegandi foofu loxo jëm ci antenne bi mbokk yi 88 le 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 yéen itam mun ngeen dugg bokk ci waxtaan bi bu ñu la déggee. Mhm. Euh, ni ñu yoree coronavirus bi ci diwaanu Pikine bi dara jagu ci alors. kon tey lan lan ngay ngay wax autorité yooyu nga xam ni tey dañu lajj ci coronavirus bi ma bañ a tooñ du Pikine rek. non tey comme yow lañ fi yow lañ Pikine waa comme yow lañ fi dalal tey Pikine ñu contexte ñu ñu damay bañ yaakaar ne Pikine Pikine baaxul feneen ak feneen baaxul. ah nañ wax Pikine rek li ma attiré attention rek mooy <laughs> ñi ñu yor. Mhm. corona bi tax xam nga olof day wax naan euh, jatang loo fóot fóotum desit bokki bexit mhm. géey nga sant de taman Dramé la sant euh, xam nga rek comme kàllaama bi <laughs> maanaam euh, euh, tubaab naan sachez la rat naturel revient au galon bien sûr maanaam aptitude la mhm. ñoom avant corona corona xam nga lan la waree mhm. corona day wone njàmbarte mu ngi mel ni oto yi nekk ci embouteillage bi mhm. boo bëggee xam oto bu mën a daw oto bu oto bu a daw danga leen teg ci péage bi mais corona loolu lay wone day day day day wone njiit njiit yi nga xam ne jàmbaar nañ am nañ def ak ñi njiit yi nga xam ne amuñu ko mais koo xam ne àllam ne na avant corona di ñëw. yow boo jekkoo alal askan bi sa poos nga ko yaakaare corona safu la wax. Pikine amul benn politique bu ñu la mën a wax politique bu ñu la mën a wax ñu ne la municipalité bii des commune wala de la ville moo ko teg bu leer ko politique boo xam ne lii la. ku mel ni maire bi ñu dëkk bi corona di commencé xam lan moo doon politique am séddale ay rato ak ay ay bale ay basang ak ay paan ak affaire yooyu. Ah, xëy na dox defar gox bi moo ko gox bi mais loolu xeexul corona. gis nga ne yow mi boo bëggoon xeex corona sa waa kër doo leen jëndal ay bale donc ñu dem ba ci biir aussi boo demee maire de la ville amul benn politique bu ñu wax la ne la lii maire de la ville moo ko teg <laughs> parce que santé ci système neuf domaines de compétence yi la bokk bien xeex euh, euh, corona c'est mm-hmm. dans le domaine sanitaire mm-hmm. de la santé donc amul benn programme bu ñu ne la ñii lii lañ teg pour corona amul da nga naan bu weesoo séddale ceeb <laughs> ba Macky Sall président Macky Sall defewoon séddale ko. Mhm. Pikine Nord ñëpp séddale ceeb. nga jàpp ni lajj bi ci kaw la. dégg la laa la wax léegi ci kaw la raw comme Pikine la nga ma wax nag ne la wax ne naa la gën a wax Pikine cest à dañ nekk ñoo xam ne ñoom dañuy nii xëy na si journaliste yi mel ni yow ñoo leen di fàttali ne corona am na. Mhm. ñoom dunduñu sax corona. Mhm. donc euh, loolu la ñuy dund Pikine franchement looloo fa am. laata Pikine itam laata coronavirus. Ah. Pikine am na ni ñu ko gisee tey. tey lan moo gën a jàmp ci Pikine li loo xam ne tey nit euh, war na ko mën a defar gaaw euh, teel ko jug balaa làmbaay ñaaw Pikine. man damay dama wax sama programme ne Pikine manque de tout. ku ma laaj Pikine dafa feebar Pikine waaw man ku ma laaj Pikine lan la lan la manqué. Mhm. dem naan ma wax li li dama la naan la wax laaj ma li mu am moo gën a yomb xëy na boo ma laajee li mu am. dama ah, la ñaar lu mu am parce que li mu manqué comme li mu li mu mhm. du. du infrastructure yu baax l'environnement bi ñu wax mhm. tey dama am dem ay xale yu doon def reboisement environnement may leen mhm. environnement ak santé man sama vision benn la Pikine amul benn environnement bi boo xoolee da nga ñëw naan fii est-ce que am na budget de huit milliards la ville de Pikine mhm. du du du éclairage public éclairage public imaginer ku euh, euh, ville kii Pikine am huit milliards bi ñu amee éclairage public parce que président Macky Sall moo def projet Fond Roche. Mhm. ñu profité ci ku mel ni commune ba ma nokk mhm. yekkaat ci ay lampam ñoonu lañ ko amee su ñu jotee là mhm. ce ce programme de du président Macky Sall Pikine du am éclairage public ak néew bi mu am du santé yi nga xam ne maire yee ko géré amul benn boo xam ne di nga ne kii li nga soxla ci santé di nga ko am boo ko bëggee da ngay génn dem hôpital Thiaroye wala nga dem CTO wala principal lu tax ñuy wax mm-hmm. à moins que ngay piqûre vaccination programme de vaccination mm-hmm. amul benn programme d'assistance bu ñu def pour les jeunes accompagner leen pour l'éducation amul benn programme boo xam ne dinañ def pour éducation bañ a nekk fardeau mm-hmm. parce que am na ba xale yu bari ñu ngi échoué dans la vie c'est pas parce que dañu ñu laar mais seen parent ñu amul moyen yu ñu leen assister jàppale leen pour ñu mën a réussir dans la vie donc voilà autant de une euh, kii boo xam ne moom moo tax maire dafa waroon mën a assister les populations parce que man mais def ko parce que man dama jàpp ne son c'est ma vision ah la fonction de maire c'est une boo xam ne c'est a priori sociale dafa jege askan bi da nga war a assister askan bi jàppale askan bi nag loolu comme maire ci maire ville di def Pikine mhm. nee na day génn deux cent millions boo xam ne dimbal nit ñi mhm. dimbal nit ñi bi yëpp mooy ay ay ay ay ay militants am lay lay lay entretenir. en hmm. clientèle politique. Euh, boo demee Pikine Nord budget bi cinquante deux millions boo xam ne dañ ko génne pour social alors que dix sept millions lañu def pour éducation. Hmm. santé ñu def ci sept millions. waaye comment les politiques da nekk en déphasage comme euh, euh, avec les besoins des populations. Hmm. donc loolu nag. Euh, mooy musiba bi. li li nga xam ne moom moom lañ conversé. moo tax nag ñun ay citoyen lañ. Mhm. mu ñu toog seetaan. yéen a ngi alerté a ngi alerté. non seulement ñu ngi alerté ñu ngi def lépp loo loo xalaat rek loo xam ne pour pour pour jëlee fi ñi fi ne. Mhm. bul fàtte nag président Thierno Alassane Sall mooy suñu leader. Mhm. dinañ ñëw ci boobu pàcc boobu. ok léegi ñuy dox est-ce que itam Lamine nekkul di ŋàññi rek. lu baax lu bon Lamine Gueye moom wala mu bëgg a trouver benn place ci euh, biir Pikine moo tax euh, day tirer à chaque fois. non man am naa place Pikine ba pare parce que fa laa juddoo yaroo fa màggee donc li ma am sama kër fa laa ko am. sama kër bàyyi fa la ne am naa fa kër man sama bopp. Mhm. donc Pikine wala sama papa nga ci armée li tëdd sama yaay sama doom Pikine laa am. moom laa tiitaroo. dañ ne da ñëw rek bëgg a aakimoo te affaire yi du noonu. yow voilà li ñuy wax yëpp li ma la réew moo xam ne yow yaa ngi ñëw euh, commune boo xam ne am nga budget yaa ngi voté budget huit cent millions mhm. lan nga dañ nga ne cinquante deux millions da nga koy def pour le social social mooy mooy lan waate mhm. te koo jëndal ordonnance ëllëg boo xoolee boo échelé nga mu yé boo échelé moo mu yéex a wax alxa yarxamu ko laa sax nga weer ko ne ko maa la defaloon lii. ah bon donc mais loolu fa xew. Mhm. emploi fictif la wax nii ce des éléments factuels. boo demee mairie de la ville Ablaye Jimbo mënul jeexal budget am budget day def retour de budget euh, trésor mhm. pourquoi parce que euh, wane nañ ne moom amul jot Agritrans la gën a toppatoo ak Aliou Sall pétrole Sénégal boobu nañu ko caxat caxate mhm. moo tax amul temps wu exécuter budget bi parce que mhm. dañ ne ci loi bi dans la décentralisation le maire est est, est du budget. te bu dee tey yaay maire Dakar. Mhm. toogoo fi pour signer xaalis bi génn pour ñu exécuter marché yi marché yi ba ñu ko voté sax dañu toog di la xaar ba nga ñëw. Mhm. à moins nga délégué sa signature. Mhm. donc loolu dafa am ay fait euh, Ablaye Thimbo day def retour de budget. concept bi ñu am ñoom ci ci ci la gestion des affaires publiques. Euh, l'idée qu'ils se font de de de la chose publique mooy loo xam ne maanaam seen seen seen occasion la pour ñu am. pour ñu divertir dama la jox benn exemple. Oui. Euh, Amadou Diarra dafa jëf benn euh, conférence de presse mu ne idée bi mu am pour dimbali askan bi def virement de crédit 31 millions dafa grignoté fu nekk dafa jël 10 millions yoo xam ne euh, conseil municipaux yi dañu waroon dem sali mu ne déggul baax li ma la wax de mu ne au lieu muy permettre conseil ñu dem di sa di sa la coulée douce mmh. à Saly dégg terme bi mu utilisé pour moom séminaire c' est une occasion dem sorti quoi comme xale ni ñu demee sorti mhm. voilà xool mhm. terme boobu mhm. daal ko journaliste nga séminaire euh, dañu jàpp ne sax formation la accéléré da ngay jàng beneen bi ab Ablaye Cimbo bi ñu demee ba daaw fin d' année décembre budget bi des na xamul nu mu koy def mu jël ay conseils municipaux mu dem sali pour montrer ce qu'ils sont moom wan askan bi li mu doon def lan la wane. Mhm. ay photo yoo xam ne ñoom ñëpp. ñu sol ay ay photo nduróole ko. Mhm. di doxante ci plage bi mel ni ay joueurs équipe nationale. ñu jël kooku noonu ci ligne bi. Mhm. asalaamaaleykum mbokk mi. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi fii alhamdulilah bi ak foo ñuy woowee. soxna bisimilah yaa ngi ci biir waxtaan bi. Euh, maa ngi wootee Pikine. Mhm. Euh, juste que ñu ngi dégg monsieur Lamine Gueye. Mhm. ci ay débaawam. Mhm. parce que boo xoolee Pikine aussi fépp a metti fépp metti. Pikine développement bu ngi koy wax fii gisuñu ko mosuñu koo gis. donc tey gis nañu benn homme boo xam ni muy Lamine Gueye. mi ngi man je ne suis pas dans son parti. mais maa ngi gis ay yu muy def yoo xam ne ñu ngi koy suivre. parce que bi ma ko commencé suivre yàgg ci Covid bi la. mu def ay actes ñëw ci biir marché bi dimbali ñu nekk ci biir marché bi avec des gels euh, et autres mooy détergent yi ñuy séddale. Mhm. donc kooku defe naa ne acteur de développement de plus depuis lors maa ngi koy déglu di déglu ay directam mhm. rëcc na mais mu ngi doon wax lu am solo. Mhm. acteur de développement ak ñëw nga ci marché bi yooyu yëpp dinañ ci digg ci fin bi. alors tey buñ la déggee léegi ñu avancé ci débat bi. Lamine Gueye tey. ñu laaj la naka nga gisee tey gestion bi nga xam ni maire bi tey yor na ko ñu jël kooku balaa ñuy ñëw ci ligne bi asalaamaaleykum allo. allo. salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi delloo yow. tur bi ak fon yi woowee. Euh, Assane Ndiaye Pikine Ouest. Assane Ndiaye Pikine Ouest Assane Ndiaye yaa ngi ci biir bisimilah. en euh, euh, fait dañuy rafetlu ngeen invité noonu tamit di ci am contentement bu baax. Hmm. muy coordinateur départemental monsieur hmm. euh, hmm. ñu ngi lay dégg bu baax. waaw muy personne bu rare aussi ci langue politique parce que ñun amaana ay jeunes lañ mais moo ñu dugal ci langue politique. donc ñu demee ba ci xuus. maanaam jëmmam jooju la. parce c'est pas une personne boo xam ne politique politicien lay def lu mu wax tey suba. ci loolu nga koy gis. Hmm. donc c'est juste un xam ne dama naa ko apporter ci hmm. personne moom. Hmm. di ko ñaanal aussi euh, li mu bëgg ci département Pikine waxuma sax ci département Pikine mais ci Sénégal. yàlla taxaw ko ba ba ba lépp antu daal. donc loolu laa amoon pour témoignage. jërëjëf Assane. en attendant ci kanam tuuti ñu tuddaal lépp. jërëjëf. ok dina leen di am temps. pour remercier ñi nga xam ni. Mm. ñoom ñoo doon woote. Mm. alors gestion maire Amadou Diarra. Mm. comme Pikine Nord nga dëkk tey nag ko nga gisee boo ñu doon defal ab bilan ci Amadou jara lan la. bilan bilan bilan xam nga note moom zéro lay am amul moyen. Amadou jara ginnaaw bañ ko falee 2014 ba tey. yow da nga jàpp ni def fa dara. franchement yàlla moo tax waxuma pour politique de man man ma politicien dama j'ai l'habitude de le dire. Hmm. man ah ci parti politique nga bokk ci parti politique mais ah. dama lay wax ne maanaam ñun hmm. Thierno Alassane Sall mooy tax ma dugg ci politique. man moom mooy sama sama idole mooy sama référence. ci politique du ma xa du ma du ma ŋàññ. Hmm. dama barki dem damay toog moom ma ne ko lenn moo ma gën a neex ci livre bi. bi muy tàmbale. dafa ne. du ma du ma du ma wax. ñu jël kooku. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. soxna si ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm. maa ngi leen di delloo ziar bu baax a baax. tur bi. Astu Saliou Astu déranger. Astu yow de kon yaa ngi déranger moom. <laughs> maa ngi leen di ziar yaa ngi ci biir. maa ngi ci biir merci beaucoup maa ngi leen di ziar di ziar suñu coordonnateur. Mm-hmm. di ko nuyu bu baax di ko jaajëfal. Mhm. man defe naa ne ba ma bàyyee toog rajo laa gëj a dugg rajo di woote. ah bon. <laughs> mais tey bu ñu bu ñu gisee tey jeune boo xamante ni dafa engagé uniquement pour mhm. goxam. Mhm. dañ koy jàppale. parce que ñun defe naa ni ñu ci bëri ku mel ne man du ñu yëngu ci politique. mais tey bu ñu yëngatu rek ci benn parti rek grâce à Lamine Gueye le coordonnateur des valeurs. muy nit ku am fulla di nit ku am fayda di nit ku bëgg boppam di nit ku bëgg nit. man li ma gën a bëgg ci moom mooy di koy sëriñ saayu la yor. muy mhm. bëgg xale. Mhm. ak defal nit. Mhm. ci moom la fekk baax. ba tax na dama naan bu fekkee da ngeen nelaw yéen ñëpp yeewu leen. ñu topp ci ginnaaw Lamine Gueye jàppale ko mu defar Pikine Nord man de am naa ci moom yaakaar su ma tëddee damay nelaw. koo xamante ne yoroo budget maire état joxul la dara. li ngay génne ci sa poche nga koy génne di dimbali askan bi. mais nañ ko dimbali mu dem toog ci Pikine Nord dimbali waa Pikine. parce que ñun sonn nañ dee nañ tàyyi nañ. Hmm. te ku bëggee dee rek da daal di daw. Hmm. man de xaw ma kan maa ngi ci ginnaaw Lamine Gueye tey ba suba ba géej gi def walaat. Hmm. man ak suma sëriñ Saliou di ko ñaanal nag yoonu jàmm. di ko wax bonne continuation. da ngay dem kenn du la tey incha allah Gueye Ndioro yow amal jàmm bu baax a baax. ba ci kanam rek mu ñëwaat incha allah. jërëjëf. nga ne gestion Amadou Diarra zéro la damay wax ne dañ koy wax franchement sans vraiment une de de caricaturer wala dara. ñun Thierno Alassane dafa am lu mu wax ci livre bi dafa ne livre bi doo gis mukk wala rarement wax joo xam ne dama koy wax te indiwuma seede donc da lii ma lay wax ci Amadou Diarra aussi mm-hmm. du question pour moom ponk par ponk lu doxul par ponk waaw amul benn domaine boo xam ne am na ci vision lu mel ni éducation dañ ne domaine de compétence école neuf laa xamoon fa laa jàng école neuf dama la jox école neuf mm-hmm. toog nañ trois ans wala quatre ans yoo xam ne am nañ fa trois classes yoo xam ne mm-hmm. dafa naaw xale yi entassé wu. amatu fa zeng amatu fa. defaru ko defaru ko ba mu ñëw fa dëkk ñoo ñëw wax ñu ko ñun suñu parti ñu def collecte dem defar zeng yi. bi mu ko yëgee xam la def. dafa dem préfet attaque wala inspection di attaquer directeur école pourquoi ñu bàyyi mu bàyyi ñu defar ko. Hmm. te alors que il vote un budget de huit cent millions. Hmm. dina recouvrer à moins euh, quatre cent ba cinq cent millions. Hmm. éducation su ma ko rombee. santé ñaari structures sanitaires yi nga xam ne moom la wax. monsieur le maire lii la kii yi sax waa commune bu ñu ko bëggee. dañuy ah, génn jot dimbal. dimbal bi dañ koy dégg. li nga wax garaaw na de nañ jël kii asalaamaaleykum. allo. soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar. man maa woote woon sànq. waaw mu dagg moo tey moom duggaat nga yaa ngi ci biir. donc ñuy wax rek ci Pikine hmm. parce que am na homme politique yoo xam ne bañ si nekkee depuis mille neuf cent soixante ba léegi Pikine benn changement gisuñu ko fi ah te defe naa oui hmm. changement kenn gisu ko fi hmm. maa ngi jégalu sax ci kàddu yi mais néew yi fi deewoon yëpp bu ñu jógee mën nañoo dellu seen biir kër mais arène nationale mi ngi fa bees de ah bu man la dinañ am ci euh, trajet boo xam ne mën na leen koo wan bañ yegg seen biir kër parce que Pikine boobu ba léegi dara changé wu. te ah. defe naa ne changement wu Pikine nekkul sax homme politique yi ñoom ñoo ko war a indi biir Pikine. Mhm. mais c'est nous d'abord. Mhm. ñun ñoo war a tànn kan la ñuy teg suñu place biir Pikine. Mhm. parce que boobu ba léegi wax ji bari na mais l'homme qu'il faut la place qu'il faut nekkagul biir Pikine. parce que bu ñu demee ba. yow suñu budget yoo xam ne am nañ ko pour defar biir Pikine ñu war koo delloo ji biir trésor donc y a problème te chômage yi bari na. Hmm. Pikine banditisme yi bari na. Hmm. ñu war a dimbali euh, néew ñu dooree biir Pikine. Hmm. ñu jëlaat xaalis boo xam ne pour waa Pikine la. nga jëlaat di ko delloo trésor. loolu aussi c'est grave. donc il faut que ñun waa Pikine aussi ñu jéem a jug dëggalaat suñu bopp monsieur Lamine Gueye comme li ma la ko sànq xaw ma ko. mais mi ngi def ay actes yoo xam ni da nga koy dégg te da nga koy rafetlu. donc maa ngi woo waa Pikine yëpp ñu koy suivre. parce que nit ki doo ko forcer kan lay boteel. mais il faut que ni commencé di ko suivre parce que mhm. il a de l'ambition e de l'objectif maa ngi koy suivre à travers Facebook avec euh, les internets yi nga xam ni moom lay def temps yi mhm. mais boo ko xoolee da xam ni nit ki am na objectif ok mais Pikine moom changement am pour mhm. ñun ñii waa Pikine d'abord la avant tout moom mooy solution bi loolu nga bëgg a wax waaw hmm? ma moom mooy solution bi Lamine Gueye non je pense bien que oui il hmm. est la solution la solution du moyen parce moom boo ko xoolee jeune la. Mhm. dëkk biir pikin yaru biir pikin peut-être am na moyen yoo xam ne waroon na koo dem mu mën a dëkk feneen ak feneen. Mhm. mais mi ngi biir Pikine dëkk ak ñun. Mhm. donc loolu rek ça dit quelque chose. donc suñuy maire defuñu fi dara Covid bi dañoo jël seeni ceeb jox leen ñu leen neex. am na ñi amul ñoo ëpp fuuf fuuf fuuf que ñi am. donc il faut que aussi loolu état bi rendre ci compte. malgré que ni sax état bi mooy loolu <laughs> il a failli. Ah, Il a ah, trop failli même. Ah bon Mais elle est... Oui, trop même. Hmm. ci ban ci ban bépp la. Ah parce que le fait ñuy woote dialogue. Hmm. dialogue boo ko defee déglu ñëpp ba pare. Hmm. defe naa ne boo leen di jël ay décision war ngeen a toog jël xalaat bi ci gën a rafet ngeen segg ko. mais yow boo wootee dialogue ba pare pour nga def li la neex. ça veut dire yow sa jalo bi nga doon wootee amul benn sens. sa dialogue bi nga wootee amul benn sens. te li may waxaat rek. réveil uh-huh. de conscience moo jot. Uh-huh. Sénégal développement dafa war a jot. Uh-huh. parce que on a des ressources yoo xam ne macha allah. mën nañ cee génnee. mais boo fekkee da nga am ay nit yoo xam ne ñoom ko sont corrupt euh, ay corrupteur lañ. développement duñ ko gaaw am. ok il faut que ñun aussi ñu a jug. jéem a xoolaat suñu bopp jéem a xoolaat suñu toogaay. jërëjëf xool baax a baax a mm. fi ñuy teg ak kan la ñuy teg. waaw léegi. Mm-hmm. Lamine Gueye am na projet Pikine. normalement yaakaar naa ne war na mën a am projet Pikine di nga ko déglu léegi nga déglu projet am nga xool bu tane moom rëcc na. Euh, kon su ma la déggee daal éducation waaw doy na doy na waaw santé bi nga ne dafa feebar itam dem fa santé. Mhm. Euh, ñaari structure appui appui yu ñu am un million la. waaw daaw lañ koy doog a jot. boo mhm. ren ren la ñuy doog a jot seen un million. te rajo laay waxee. dama la jox ay éléments factuels. environnement moom. Lamine Gueye Amadou Diarra maire la dafa war a rendre compte kon li muy def. nii yëpp moo tax man moo tax man ci Covid bi wax naa ñun bu ñu jotee maire bi dinañ def audit. il va rendre compte. parce que justement foofu sax yow comme wax nga ko. Ah, Lamine nekk de wër bi ngay wëraalu bi yëpp kon yow da nga am ambition. remplacer ki nga xam ni moom moo di Amadou Diarra. non gis nga démocratie dañ ne parti politique boo gis ñu sos ko. Mhm. objectif am. non dama bëgg nga wax ma fii yow candidat nga ci élection yi ci laa jëm dama ndànk dama ndànk ci laa jëm. Mhm. Euh, malheureusement. Ah. jël kii allo. soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. rëcc na ambition nga am pour jiite politique parti politique boo mhm. gis. Mhm. objectif am mooy euh, euh, accéder au pouvoir. RV bi ñu koy créer république de valeur moo doon ñun ñëpp dañoo takku laxasaayu topp ci ginnaaw président Thierno Alassane Sall. pour mu jël réew mi. ok jongeendi ko. bu loolu weesoo nag ay élection locale yi ñu am président Thierno Alassane Sall am na ay takkandeer man ci takkandeer yi laa bokk dëkk Pikine mhm. su ma sama parti amee confiance ci man mhm. ma ma nekk candidat loolu bu ci jotee parti bi la fekk nag ne dem naa ci population yi am am seeni seeni seeni mébét mhm. wax leen aussi sama projet ok kon dugg génn yu bari yëpp kon kay mairie bi moo la tax a jóg non mais gox bi moom ma ñor pas seulement maire bu doon maire rek kon dañuy xaar ba élection yi tax a mhm. campagne bi taxaw ñu jug ñi xam ne maire bi moo leen tax a jug dafa am sama benn militant bu am solo bu saf xorom nee na ñoo ñooy mbott nawet yi politiciens yooyu yëpp doo leen dégg xam nga kañ nga leen dégg. Mhm. bu campagne bi commencé. ñii ñi maire bi tax a jug. Mhm. ñooñu gisagoo leen de. Mhm. dañuy bàyyi bañ ne élection jot na. di yi jot na. ñooñu la maire bi tax a jug. mais man gox bi moom a ñor. moo tax xamuñu élection kañ la. mais on est sur le terrain. ok naam euh, parti bi investir gu la. waaye am nga projet. lan mooy sa projet de société. moom lañ programme parce que nag du ma la wax lépp. junj les grands les mm-hmm. euh, man les mm-hmm. grandes lignes man. bien sûr sama sama jàpp ne. comme yaa ngi naan santé bi feebar na. waaw ma foofu laa jëm. éducation feebar na. léegi ma foofu laa jëm. sama sama sama kii bi mooy la jeunesse et les femmes. man ñooy sama priorité mhm. parce que Abdoulaye Wade dafa am lu mu doon mu ne mhm. euh, jeunesse mooy richesse Afrique mhm. mais dafa am lu ma ci teg dama ne encore quelle jeunesse il faut que cette jeunesse soit formée soit bien éduquée soit bien euh, soignée mun am santé donc yooyu yëpp moo tax ñun éducation li am programme mooy Pikine budget bi ñu jël di ko pasar pasare nañ ñëw investir ko ci éducation bi ci lan mooy éducation wartul nekk chargé pour les parents Pikine Nord wala ville de Pikine sax kenn war faa mën a jënd kaye école di tijji. Mhm. budget bi antan na ko bu ñu weesoo loolu euh, santé. Mhm. war nañ am les équipements nécessaires yoo xam ne lu ay ba balan ay échographie ay rajo. Mhm. yooyu nga xam ne boo demee dans les pays wax ma dem ba développé pays émergents poste de santé yi sax dañ koy am. donc yooyu dañ ko war a am dafa na nekk yoo xam ne ay farta la. les femmes yi nga xam ne aussi ñu ngi def. ay jàmbar lañ ñu ngi am fii ay ay ay ay formation yi def ñii di defar cere mhm. ñii di defar nangam ak nangam di jaay ñu suqali leen quoi suqali leen subventionnel wax ma pour jox leen enveloppe téye leen politiquement de mais mhm. subventionnel ba nga xam ne seen liggéey day gën a yokk ñu am pouvoir d'achat mhm. donc yooyu bokk na ci nga xam ne nag yéen nag. damay mhm. bañ gars yi topp. assainissement ak environnement itam yitteel na lu ko soxla de mhm. bien sûr assainissement boo waxee voilà loolu la ñuy wax ñu naan la bokkul ci ci ci ci ci neuf domaines de compétence yi mais man neuf domaines de compétence dama jàpp ne. dafa am dixième. Mhm. mooy lan comme ni ñu naan douzième gaynde dixième mooy l'influence que que peut avoir le maire parce que maire mën a woo directeur ONAS wala plaider auprès du ministre wala moo gën a yomb que un citoyen lambda di ko def. Mhm. maire nag bu plaider foofu. Mhm. donc assainissement bi dina gën a yomb. Mhm. bien que bokkul si neuf de compétence de compétence neuf la. assainissement bokk ci sécurité bokk ci parce que ñun dañ prévoir suñu programme. terre de vertu dañ koy defaraat. vous pensez alentour yi dañuy. ils sont pas limités ils sont de mauvaise foi dañu am manque de volonté. parce que ñoom ni gisee politique. ko bokkul ak ñun ni ñu ko seen président jàngalee Thierno Alassane daf ñu jàngale politique. Mhm. du pour am politique c' une occasion pour mën a defal sa réew dara. Mhm. pour mën a fexe sa askan yëpp suqali ko. pour aussi nga bàyyi fi tur boo xam ne. Mhm. des générations futures bu ñëwee dañ lay fàttali. boo demee Afrique du Sud Nelson Mandela. fii ba cent ans dañuy fàttali ko man Nelson Mandela Madiba boo demee dans les grandes nations la mhm. dafa am les les les les li nga xam les visionnaires mhm. ñun noonu lañ gisee kii mais nag ñoom mhm. pour ñoom politique boo falo rek war nga sal jasner bu niin war nga am oto bu rafet moo tax koo ci bëgg a folli day jooy ba tëdd ci tali bi <laughs> parrainage bi supprimé nañ ko dialogue bi mi ngi dem am na ponk yu d'accord ponk yoo xam ne d'accord uñ ci mm-hmm. yow mi am envie wala am yéene dem élection mm-hmm. dàq nañ parrainage bi tey ban jàngat nga ci indi bu njëkk ñun dialogue bi dañ jàpp ne mm-hmm. caaxaan la dialogue politique bi laa wax nag waxuma dialogue national mhm. parce que ñun dañ jàpp ne président euh, état war na mën a wax secteur privé mhm. di président Macky Sall jógee fii dem ba di wax waa MEDEF mhm. France entreprise français yi te bàyyi entreprise ba entreprise sénégalais euh, euh, maanaam ñi ñu jiite maanaam dafa mel dañoo signé benn protocole comme ñu ma ko protocole de l'Élysée dañoo signé tubaab yi benn pacte boo xam ne ñun balaa ñoo defal suñu bopp nañ leen defal ba pare bu fi dara xewee mhm. bu fi dara feeñee yàlla xewluñu pétrole mhm. nañ jox tubaab bi ba ñu regg ñu ñu doo ko mos mhm. noonu la demee moo tax dialogue bi c'était xam ne président Macky Sall da ko ah, bi teew nañ fi di yéen ci opposition ngeen bokk ñun bi su ma nee opposition bi du ñëpp mais am teew xam nañ leen teew barki démb ñu ngi leen dégg ñuy laaj ay ay indemnité mos ngaa dégg loolu di waxtaane si réew ne nañ ma fay te yow nga ne réew mi la ñor falawuñ la dara dara dara dara mm-hmm. opposition nga nekk nga dañuy waxtaane réew bi mm-hmm. parrainage bi président Macky Sall xamoon na ne parenage bi tafu la baaxul da ko utiliser woon rek pour caler ay candidats mm-hmm. mel ni Thierno Alassane Sall noonu la pour dafa bëggoon kale bëgguloon mu bokk ci présidentielle yi mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. loolu la doon doyee parrainage bi présidentielle yi jàll na mm-hmm. union européenne sax taxawoon nañ ko ne ko parrainage bi mënul nekk ni ñu koy defee mënul nekk donc moo tax dindiwaat na ko léegi nag foog mu am benn cadre boo xam ne nag day woo les soi-disant opposants en attendant mu leen dugal ci gouvernement bi muy euh, li mu bëgg a def mu def ko légitimer ko ne maanaam opposition bi ñoo ñoo ci Lamine Gueye damay delluwaat ci Pikine na de te bëri <laughs> Pikine rëy na ak nu mu mën a toll anta nañ ko da nga xamul malheureusement mhm. euh, da nga xamul ku Thierno Alassane Sall ki nga xam ne mooy suñu inspirateur mhm. peut-être malheureusement balaa maa dem dinaa la may livre bi nga liir ko nga xam mhm. kan mooy ki ki nga xam ne moom lañ topp ci ginnaawam vision vision bi mu am donc waxuma la Pikine ñun Sénégal sax boo ñu ko joxee ñu ñu ko États-Unis d'Afrique nag laa la wax ok ñu ñëw ci ponk bu mu bi dafa génne livre du pekk le protocole de l'Élysée mu jur coow. Mhm. am sax ñenn ñu ne Thierno Alassane Sall laata muy génne livre bi dafa bëgg buzz bëgguñu ko xam. Mhm. moo tax mu génne lii. Mhm. mais ci seen arène politique bi mel na ni dafa réeroon. est-ce que du ne looloo tax mu dekkiwaat. waaw gis nga loolu bu doon loolu la xam nga kañ la koy génnee livre bi bi kam bi élection yi di waaj jot. homme politique fu muy bëggee buzz dëgg dëgg dëgg. mooy bi élection yi di waaj ñëw kon xam nga wax jooju dàqu na. yow àndoo ci ñoom loolu ñuy wax. loolu yow borom xel yi mënuñ ci ànd gis nga nañ nañ bàyyi rek suñu xel yi xool homme politique buy bëgg buzz boo fi joxoon saafara ne ko pour buzz la. Mhm. day bàyyi ba élection jege mu sangoo saafara pour am buzz. mais kii dafa bàyyi barki démb la élection yi jàll. Mhm. mu génn li muy génne moom politique tax ko wax dafa parce que dafa jàpp ne. Mhm. dafa am lu mu warloo askanu Sénégal. dafa am ñoo xam ne président Macky Thierno Alassane Sall moo taxawoon ne leen nañ ànd ak Macky Sall. jàppale ko. Mhm. Macky Sall baax na. Mhm. dugg ci biir gis na nag naka sudul noonu xew na. Mhm. génnul de. dafa toog ci biir wax ak ñoom. wax leen ne naka sudul noonu bii di xew. warul demee nii. ñu dëgër bopp. mu ne nag comme sénégalais ñoo leen fi teg. naa génn wax ak sénégalais te mënoon na ko def ay façon. of nag am nga droit yow. dem dénoncer anonymement. laqatu kenn bañ a xam. mais moom pour wax la ne dafa ñamee li muy wax. daf ko bind. livre cinq cent pages. nee naa la sànq bi mu commencé livre dafa ne. du ma wax dara loo xam ne du tudduma ay nit mu am seede mhm. barki démb lañ invité Moustapha Diakhaté mhm. ñu ne ko Thierno Alassane Cissé la ndax li mu wax dëgg la mhm. mu ne waaw dëgg la Lamine Gueye donc loolu mooy livre bi nga xam ne moom la bind pour uh-huh. wax sénégalais yi uh-huh. ba pare nag def ci nag livre boo xam ne dafa waxaale aussi moom ban gis-gis la wax uh-huh. la gis pour Sénégal parce que tamit doona rek baax lii baaxul jeex na déedéet boo ne lii baaxul da ngay indi proposition donc mu indiwaale aussi vision Lamine Gueye est-ce que man ñeme naa toog léegi di waxtaan ak nit puisque fii est-ce que nu nekkul ni secret la fii Thierno Alassane Sall fësal. waa loolu gis nga gis nga dafa am lu ñuy wax euh, secret d'État ak secret contre l'État. <laughs> ñiy wax loolu yëpp mooy ñi nga xam ne njuuj njaaj dañoo bëgg a détourner bi feneen. <laughs> mais doo dégg mukk la li mu wax du dégg <laughs> dañ naan la waru ko woon wax. lan la dafa am loo xam ne dañ koy comploter pour. contre sénégalais yi. loolu la dénoncé. amul lenn loo xam ne daf ko lu stratégie la sénégalais yi moom ko. Mhm. mu mu mu génne ko xam nga la génne. Mhm. dafa génn ne. Mhm. li ñu doon wax pétrole te livre nag du pétrole kese de. mais dama la jox benn ponk dama la jox benn ponk. mu ne. liñ fi waxoon ne pétrole Sénégal président Macky Sall ne. ñooy na ko xaw ma euh, toppatoo na ko toppatoo bi ci war. ba nga xam ne. Euh, ni mu waree Sénégal dina ci am bénéfice. mu ñëw ne ah. li ma gis ci biir du woon loolu. Mhm. parce que code bi dafa ne ku toll na Petro-Tim mhm. bu jógee fële. Mhm. ne dafa bëgg. te ñëpp xam ne kii. amul licence amul ñu na acca continuer ku mel ni Petro-Tim ñëpp xam nañu kii compétence technique amul compétence financière juuti maan la bukki maan la day jël licence bi dem di jaay bu gisee ku mu ko jaay jaay ko ah après mu amaat ci xaalisam euh, dem feneen wuti ko adduna bi yëpp xamee ko mais gis gis nañ kooku la dama la expliqué dama la expliqué même tuuti ma expliqué la. Mhm. kooku la ñëw. Mhm. président Macky Sall ñëw. Mhm. fekk signé woon nañ kooku waxataanu état waxoon nañu ak moom ba pare. mu ñëw signé ak moom. moo ko Aly Ngouille président Thierno Alassane Sall bi mu ñuy remplacé dañ ko doon nëbb ndax sax ne. IGE dem na ba vérifier. xool ndax Petrotim am na compétence ak amu ko parce que IGE dafa ne. Petrotim amul compétence technique amul compétence financière. kon waruñu ko woon jox. imaginel tey ma remplacer yow ñu war a def passation de service ah nga war ma jox dossier yi fi nekkoon. Mm-hmm. ñu ne la na nga ko ko nëbb. li nga mm-hmm. xam ne moo fi xewoon. Mm-hmm. premier scandale bi nga xamee ne Cosmos ñëw na beneen entreprise parce que Petrotim boo ko bàyyiwoon fi ba yomal xiyam du exploité foog mu jaay ko. entreprise boobu bi mu ñëwee Petrotim bëgg ko jaay. dafa ne ko yow du ma jëndanteeg yow. ndax setoo ba pare ba ngay signé contrat bi sa entreprise juddoogul mhm. gis ngaa jël gis gis loolu koo xam ne bi ñu koy signé signé entretien d'embauche juddoogul mhm. Mhm. loolu mooy loolu mooy jël kii mi ngi insister salaamaaleykum rëcc na est-ce que yéen li ngeen bind allez gis nga gis nga foofu ñu njaaj boobu yow allo salaamaaleykum rëcc na allez entreprise boo xam ne entreprise laa wax de dafa séexlu dafa séexlu wax ak kii yow état nga traité ak moom taq ci rib mhm. ñu ne déet waay bi entreprise ñooy dafa ne man du ma seq ak Petro-Tim mhm. ñu créé Timis te ñoom dañ doon wax Boun Abdallah moo fi doon wax petro am na compétence technique am na compétence financière Alioune bi mu bind lettre mhm. moom comme mook Timis ñoo mook ñoo ànd bi mu bind lettre Aly Ngouille Ndiaye dafa ne ko nañ jël permis bi jox ko Timis ndax Timis am na compétence yi dina ko defar. kon ce qui veut dire que. allo allo uh-huh. salaamaaleykum. sonn naa trop yàlla. waaw waaw ñu ngi jégalu bu baax ñu ngi jégalu bu baax. ay ah, Aïssatou Seck. ah une minute Aïssatou Seck lan nga ñu mën a wax ci Lamine géey miy toog. en tout cas c'est un homme engagé un homme déterminé. koo xam ne dafa bëgg pikin uh-huh. dafa fonk waa pikin uh-huh. dafa yor xaalisam te dundeewu ko moom kese di ko dundee di ko dundalee waa pikin nit koo xam ne lekkul dara bàyyi pikin mhm. koo xam ne amul budget amul dara mhm. mi ngi góorgóorlu mi ngi ñafee mhm. lépp pour waa pikin yàlla na ko yàlla defal jàmm nañ leen bàyyi ngeen continuer nice la ok alors faaw ñu dagg la nag oh. Lamine Gueye bu la bàyyee nag tënk livre bi nga nar a def xam nga dinañ ci ñëwaat dama la bëggoon jox benn élément malheureusement gis nga xaw baal ma rek moom gis nga dafa am loo xam ne yéen journaliste yi malheureusement. Mhm. liroo livre mais man man livre bi. comme Dieng ma ko may. man mi livre bi man mi mhm. livre bi bu ñu dee bu dee dañ nekk démocratie bu normal. assemblée def li mu war a def. Mhm. Euh, justice def li mu war a def. président Macky Sall waratul yeewoo fale. li ngay wax garaaw na trop. dafa garaaw parce que li mu def dafa garaaw. bu dee livre bi ñu lire nañ ko. les députés là ñi nga xam ne ñooy génn ci ci plateau yi di wax. nga xam ne bu doon du sérieux comme ni ñu def affaire Khalifa Sall am nga affaire Khalifa Sall un milliard huit cent la wax de. ñu def commission d' enquête parlementaire. commission d' ah. li ëpp la li di waay ëpp na dafa mel ni ay kenn xamul génération future dañ euh, kii euh, te mu loo xam ne de un ancien ministre moo ngi ko wax benn waay moo ngi ko mi de. Mhm. koo xam ne dafa nekkoon ministre. Mhm. nekk seen biir nekk bureau président de la république toog ak premier ministre wax ak ñoom li muy wax ak ñoom. Mhm. génn bind li muy bind kenn sañul du baaraam ne li mu li mu wax du dëgg. moo tax dama ne. Mhm. livre. Mhm. gis nga journaliste mooy presse mooy quatrième pouvoir. Mhm. bu doon dañu def li ñu war a def. assemblée def li mu war a def. justice def li mu war a def. ñu ne réew mi lan la ñuy léjanti. dootuñu wax troisième mandat dañuy laam-laamee ndax président Macky Sall ndax dina terminer mandaam wala du ko terminer. moo tax dama leen ñaan journaliste ngeen lire ko. ngeen xam li mu ci wax. parce que sinon rek. day nekk loo xam ne intoxication day am. waa waa waa waa Macky Sall ñooy génn fee rek lu neex ñu wax. léexoor yi mu bind ci livre bi yëpp. nag léegi li mu wax yëpp. Ah. est-ce que xam nga ci lu xam ngeen ni lu ko ci mën a xaar ci wàllu yoon. non gis nga gis nga ñun man man. Ah, am lu fii Sénégal. wàllu yoon bi moom xam nga lan la. Mhm. lu ko ci mën a xaar. waaw mooy parce que ministre lool mooy ñu woo ko. Mhm. ne ko li nga wax foo ko teg. Mhm. parce que man soo ñëwee ne kii sàcc la. ñu foo ko teg nga leen xool leen poos yi sàcc baa ngi loxo baa ngi fi xool leen tànk yi fii la génnee mm-hmm. xool leen caméra de surveillance bi jàpp na ko léegi nag bu dee yoon sérieux na nag lan xanaa yow mi naan sàcc la dañ laa war a bàyyi te da lijjanti sàcc bi moom loolu la bëgg président Thierno Alassane dafa yàgg a wax avant bind livre bi dafa yàgg wax ne biñ koy convoqué dig dafa ne man du ma wax ak ay policiers yoo xam ne Aliou Ngouille Ndiaye moo leen diriger. Mm-hmm. te moom sa responsabilité est nañ ma assemblée nationale woote. Mm-hmm. gis nga dëkk yu sérieux yi journal sax bu bindee si nit su assemblée nationale dañuy daje def mhm. commission d'enquête gis naa suñu benn naataango. non moom yéen yéen a ko waroon dàq. <laughs> Aïssatou Diop Fall ngay ci ñëw léegi dañuy wax euh, ci euh, OFNAC euh, dañu ne quarante cinq jours la joxoon deadline. pour ci li nga xam ni moo jëm ci li nga xam ni moom moo jëm ci déclaration patrimoine altine ëllëg. lay am quarante cinq jours. tey lan ngay xaar. képp koo xam ne euh, demul def déclaration patrimoine man man man man c'est dommage yooyu tam daanaka yu mel noonu président Thierno Alassane wax na ko ci livre bi. léegi looy xaar ci loolu. ëllëg mooy deadline bi suba man defuma déclaration de patrimoine. non je veux lan ngay xaar ci ñoom je veux ñoom la joxoon ab lu may xaar ci ñoom seen président Macky Sall mooy waxoon dem leen def ko. Mhm. defuñu ko defuñu ko ba mu ñëwaat article leen def leen ko defaat leen ko defuñu après ñu toogaat 3 mois. Mm-hmm. mu ñëwaat ne la def leen ko rek parce que kilifa goo xam ne yow booy wax ñi ngay waxal c'est ça le problème ñi ngay waxal. da nga jàpp ni kàddu bi dëgërul. bi mooy ñaata yoon mu leen ko. un président de ki mu ki ki mu koy sant yow yaa ko fi nommé. yow yow yow ki nga xam ne yow yaa ko nommé ne ko defal ma nii. Mm-hmm. chaque jour nga ñëw ne ko defal ma nii. amoo dara loo ci xaar. man na vraiment man li ma man man vraiment bi ma liiree livre Thierno Alassane Sall bi ba léegi. Mm-hmm. am lan lay xaar. lenn rek lay xaar ci réew mi. mooy assemblée nationale. ak justice def yoon. bi kañ la. Euh, dinañ ko jàpp incha allah dinañ la invité. <laughs> dinañ la invité boo ñëw nga indaale livre te li ma lay ñaan nag te loolu lay ñaan réew mi yëpp. waaw nañ lire livre bi vraiment man émission bi sax man loolu laa ko yaakaaroon dama yaakaaroon da nga bëggoon ñëw ñu waxtaan ci livre bi. non livre bi génn gul bàyyi mu génn. génn en attendant dédicace bi ñëw nga lire ko parce que journaliste nga. waaw da nga war a xam. incha allah le livre de 500 pages. amul problème bi mu ko génnee ba léegi. Mhm. seetlu nag bàyyi sax li ma la wax de. Mhm. doo dégg mukk la ne li mu wax du dëgg. ay waru ko wax. non waroo woon lii dangaa ngaa waroon noppi eh, eh, da nga waroon Umar Yum nee na war ko wax dafa waroon bàyyi vingt ans après mu doo ko wax. Mhm. yooyu la ñuy wax. donc man vraiment euh, <laughs> du ma du ma du ma du ma du ma xëtt yi mais j'aurais bien vraiment sénégalais xam ko. assemblée nationale. toog mhm. def seen wareef. ñu def seen liggéey daal Alioune Sall mi fi yoroon Kamil toog di waat. Mhm. te yàgg ne musul wax waxu Thierno Alassane Sall ci li ci pétrole bi. Mhm. Ah, Thierno Alassane wax na ñaata yoon la toog bu taxaw buntu këram di ko pour mu recevoir ko. pour ñu wax ci pétrole bi. pour ñu teg dil Thierno Alassane Sall bañ. weddiwu ko. ñaata yoon donc ñu ngi wax ay waxu ay waxu SMS ay waxu non. bu ñu fàtte ak ak ak secret de mhm. mais bu ñu fàtte euh, mémoire Abdou Diouf yi mi ngi fi wala euh, euh, Habib Thiam mhm. Habib Thiam dafa ne mhm. Sénégal toog na lu yàgg Jean Collin moo ko doon diriger Abdou Diouf benn benn marionnette rek la woon toog naa man ak Abdou jouf ñi ñu toog mu toog ba yàgg génn benn feuille mémoire devoir par devoir d'amitié et de de de kii livre ba mémoire Abdou kii Habib Thiam yi mu ne toog nag Abdou Diouf Abdou Diouf génn benn feuille. ndek bind nañ ci ay tur yi ñu baare ko rouge yi ñu baare ko kii Jean Collin moo xool xam ne lii bindu Jean Collin la. Mhm. mais loolu ana secret d'état bi Sénégal dañ ko war a xam. Abdou Diouf nettali na loo xam ne moog chef d'état majoram la. moog Moustapha Niass la. Mhm. moog Djiboka la moog mhm. Khadafi la. Sénégalais dañ ko war a xam. mais bii. ñu ne Sénégalais waruñu ko xam mais par droit. moo tax vraiment man. li may waxaat fii. Mhm. damay profiter lancer un appel à nos députés. Mhm. su dee ay député mhm. nañ def li ñuy def. woo président Thierno Alassane Sall toog waxtaan ak moom ci livre mu wax leen li ñu leen war a wax. les personnes concernées. mu woo leen ba ci le président la République. parce que président de la République il n'est pas certes en dessous des lois. mais il n'est pas non plus au dessus. donc moog Sénégalais yëpp. message bi dégg nañ ko. alors lan mooy mot de la fin bi euh, ak ñi nga xam ne ñoom ñoo dugg tey. jox seen may nga mm. sant leen gërëm leen euh, itam ñu bàyyi la nga tàggatoo benn yoon parce que waxtu bu ñu cërale woon daanaka une minute moo ci des ñooñu moom damay wax ne ñooy sama force mm-hmm. parce que Lamine Gueye kese mënul Lamine Gueye kese euh, xamul lépp mm-hmm. euh, ñenn ñi xàmme naa leen mm-hmm. vraiment dañu jël kooku mi ngi insister mooy auditeur bu mujj wala auditrice salaamaaleykum maaleykum wa rahmatulah sëñ bi yaa mujj ñu ngi lay may trente secondes nga terminer moom mu daaneel allo rëcc na ñu bàyyi la nga continuer ñooñu moom vraiment dama leen di jaajëfal ñoom ñëpp. Mhm. Euh, ba ci ñi wootewul sax ah. parce que dañ nekk sama ginnaaw teewlu bëri nañ parce message yi may jot sama téléphone. bëri na trop mu ngoog vraiment mhm. lépp rek. Mhm. vraiment parce dañu gëm ba république des valeurs mhm. euh, réewam ngor bi ñu woote dañ ko gëm mhm. vraiment ñoom ñëpp ànd ak man ñëpp ñu laxasaayu nekk ci ginnaaw Thierno Alassane Sall mhm. pour soppi Pikine ñoo tax maa ngi leen di ñoom di leen jaajëfal di leen wax ne nañ jàpp teew bàyyi te li li li daloon président Macky Sall te Thierno Alassane Sall di ko expliquer bu soobee yàlla duñu dal parce que dañ gis ne ñi nga àndal campagne ànd ak ñoom dem ci population yi wax ak population yi ñoom ñoo gën a comprendre sa vision mm-hmm. kon boo falaw mm-hmm. ñooñu nga war a jëkk a jël teg sa wet parce que ñoo xam sa vision ñoo xam sa bëgg-bëgg ñoo xam Euh, mébétu askan bi mhm. parce que bi ngay dem ci askan bi ñoom nga àndaloo donc looloo looloo tax nag mhm. bu ñu yàlla dénkee maire bi mhm. bu ñu yàlla dénkee incha allah 2024 ndegam président Macky euh, ko euh, mu jëm kanam Lamine Gueye di la gërëm bu baax a baax di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk auditeurs yi ak auditrices yi di nuyu may itam bu baax jàpp na ci émission bi vraiment ma koy remercier nga baal ma tuuti rek moom it vraiment c'est une battante noonu laa koy koy woowee sax. Euh, vraiment jàmbaar la. mu ngi liggéey liggéey bu mm-hmm. am solo ci communication. de manière professionnalisme la jokkoo ak moom ci émission bi. mu yaatal ma bu baax man chinois la. Mm-hmm. chinois yi laa jàngee dama xam rigueur xam mm-hmm. vraiment bëgg professionnalisme. moo tax vraiment loolu dama koy seddeel. merci beaucoup kon boog may mi ngi noonu ñu baaxee la lool di la sant di la gërëm ci disponibilité bi. jox leen dig daje beneen dimanche incha allah ci ak beneen. invité ci émission gox bi nag boo xam ne dañuy ñëw nag waxtaanee livre bi. amul loolu laa bëggoon amul problème incha allah vraiment bëggoon livre bi. Mhm. ñu interpellé waa APR sax xam naa duñ ci sañ a wax. boobu débat lay doon ñoom dañoo tiit livre bi ñoom rek lay wax. livre bi li muy wax Sénégal bari na. kooku mooy kan asalaamaaleykum ñu jël kooku allo. salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi tàggatoo nañ ba pare yow rek yaa ci des yow la tur bi. Abdourahmane Dia. Abdourahmane Dia lan nga ñu mën a wax ci Lamine Gueye. waaw Lamine tabaarakallaahu luñ mën a wax ci moom bëri na. waaw ñu tënk ko rek. waaw nekk na doomu aadama boo xamante ni. Hmm. doomu aadama moom moo ko ñor. Hmm. foo ko fekk mi ngi dox ci tey doomu jàmbur. Hmm. xam li ñu mën a tënk ci moom bëri na loolu waaye comme waxtu bi dab nañu. di leen seedeel rek ni ku bëgg goxam la. jërëjëf. ku bëgg doomu aadama la. ku respecté doomu aadama la. te nekk na tamit koo xamante lu gën a am solo mooy mhm. jullit la te gëm yàlla la mhm. dañoo tardé bu émission bi yaatu woon dina leen wax ci moom lu bari loo xam ne am na solo dañ koy leb ba beneen incha allah la sax Pikine mhm. luy jëmale àdduna kanam la nañ ko ñaanal yàlla yàggal taxawaayam ba yéene bu ñu am ci moom yëpp ñu def ko ci barke yonent bi jërëjëf incha allah ñu nag moom ca kaw ca kanam ci lu baax. merci ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax. a baax di renouveler suñu ànd ak yow. bu baax a baax a baax ñu nag waa njaboot bi yëpp. Mm-hmm. nañ bu baax a baax yow ñu ngi lay ñaanal. merci beaucoup Dia. merci beaucoup donc dig daje beneen euh, émission dimanche ak beneen invité ci émission euh, gox bi. ci mm-hmm. rajo Rewmi FM.